projet karamatu xatiya di li nga xam ne moo ko tax a jóg moo di mboolem yàq yi nga xam ne ñenn ñun ñu ko daan def ci xaside yi ci mbind loole ñu saafara ko ci comité scientifique bi nga xam ne moom lañ taxawal ñuy saytu li ni mel di mbindaat xaside yi ci mbind mu wér. sëñ bi day mel ni li mu bëggoon moom li nekk marje delluwaay nga xam ne kuy bindati ngay dellu ci lii ndax mbind yi da nga seetlu mool yu bari yoo xam ne dafay bari ay yàq. yenn yi mbind mi du rafet yenn yi day bari yàq yenn yi itam di xasida yoo xam ne waree su ko génne dafa am ci mbind mi xasida yoo xam ne day diggam ak boroomam loo xam ne ci ay gaal la ko defoon gas ko suul yoo xam ne dafa tere woon ñu tasaare ko loolu boo demee ci diwaan yi si mut jaa ñi leeral na ko rek loolu ci biir ñoo xam ne loo xam ne diggam ak boroom la yooyu buñ ci àggee dañ koy bàyyi xel ak yoo xam ne itam <clears throat> dafa jaxasoo ci biir mbind yi xaaj na ñenn ñoo ko bindoon ñu di ko askanale te moom te defu ko yooyu yëpp incha allah ñu ngi koy bàyyi xel mel ni suñu soix de moom la wax ak ñeneen ñoo xam ne seen xam-xam dafa wàcc ci wàllu googu des cay diisoo ak ñoom pour bala ñu ko génne ñoo ñu xam xam lu war a génn lu war a génn incha allah liggéey la boo xam ne daal lim laaj lépp ci ay sonni ak ittéo ñu ko def moom ndax nag day loo xam ne du lu woyof ndax bu noppi nii lu ni ko sëñ Cheikh Fatma waxee lu lu taarix di téye lay doon ala karil ayaami wa wa suuxa ba addunay tukki bi dafay des kon nag loolu nañ ko bàyyi xel bu bàyyi nañ ci xel yooyu yëpp bàyyi ci xelit ne euh, moom ci boppam lii euh, ab liggéeyam la boo xam ne li ko li bàyyi li ko ci gën a ñor ci la bokk kon ku ci lañ lañu di ci di ko di ci di ci liggéey war def ndànk bu baax a baax ndax du loo xam ne des ci def jëfandikoo xalaat wala nga di ko nga ko toppi xam-xam waaye des koy des ci des ci des ci sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom la daan binduloo yàlla dogal na ñu ci bari seen ñoom seen i bind am nañ ko muy mag ñi nga xam ne euh, ñoom da leen daan binduloo suñu bindee ba noppi jox ko mu xool léeg mu yokk ci dara ñooñu itam des na delloo ci euh, seeni i mbind